ak diw ak diw ño far diw ak diw ak diw ño far diw ak diw dañ yak diw diw ak diw dañ yak diw ku nek ci ñom jégué waali jaral na la jël bakkan man ma leen ko wax bind leen ngeen tek jégué waali jaral na leen ray nit ñi jégué waali jaral na leen ñu jël am liggéey sotti ko ci kaasu café bi jox ko ko mu naan la fa am kenn mënu ko wax légui ñooñu comme que ñoom jakkar lok askanu Sénégal wax jakkar lok public bi wax aadama lan ci préféré am nañ ci droit nan woo aadama bos day léegari tegal ko temps ak temps ak temps mais aadama boo ko dee woo pa bu dee dafa demee ci kàngu neneen dalay enregistré téye ko ndax ndax àdduna ëllëg moo tax xam nga tey ji Amady Badiane la moom fa defoon temps yee ñu bëri woonan ma téléphone ne ma yaa ñàkk jom Amady nee na nga génn ci moom nee na nga bàyyi ko waat na ci alxuraanu karim booba damaa toog rek jàpp sama bopp ba tey yënguwuma te pourtant la ma xaman bu ma ko waxoon adduna bi tëb waadeeg yëpp du féete dara waadeeg yëpp day arrêté mais dama ne non non sama grand frère la ku baax la naa bàyyi mu sedd mais bari na ci morom man saa yu ma waxee ci Wally Seck saa saa yu ma yëkkatee kaddu wax ci Wally ku nekk Ramadan damay téléphoné ne ma Adama bos Dey Negri ma ne ko amu ah ne ma toj nga dëkk bi Adama Boss Dey Negri toj nga réew mi yal na la yàlla fay guddal fan waxal nga senegal waxal nga ñu parce que am lu leen metti ci wali mais mënu ñu ko wax publiquement parce que bu nu ko waxee japp na ne du lekkati du do nat mais ci adamo lan mëna jaar nangul leen leen lool adamo demul ci téléphone kenn adamo wowul kenn aadama jegewul kenn adamo waxul la kenn adamo nekkul la kenn man bu ma téléphone dama leen di déglu ñu tegal ma ma dégg dama bëgg mu leer comme que ñom ñoo mënul jot ba mënuñoo toog ak moom wala ñu dem këram wax waali bàllaago sekk li leen métti waali dégg ko faj ko ñu bàyyi fi waali bàyyi fi océan atlantique bàyyi fi méridien bàyyi fi géeju rëy romb dex romb tefes romb asamaan juróom-ñaar duble suuf si laal avion bi ko ci jaww bi wàcc turki def escale Istanbul jóge Istanbul wàcc Bruxelles ñëw Allemagne ne Adama moo leen ci yaakaar lu ngeen ci man mais lan ngeen man ci loolu yéen lu ngeen ci man ki nekk Allemagne lan ngeen ci man lan ngeen man ci lan lan ngeen ci man ñi ma gën a jege Wally Ballago Seck di ànd ak Wally démb tey doog a ñëw ba muy neex ba muy naqareeg ba mu safee ak nu mën a mel ñi ko gën a jege comme que ñoom ñoo mënut a toog ak Wally wax ko li nga xam ne nii moom moo leen métti ci biir Faramareen ak waa Faramareen group ak ñëw yu bees yeeg la ca xew comme que ñoom ñoo mënut a lijjanti loolu seen biir am Adamo doy leen ci ñu woo leen téléphone pour Adamo leeral problème bi ngeen ne Adamo ngeen di subbi coow li ah Adamo mooy tas groupe bi Adamo moom mooy yàq Adamo dafa dem wala dafa digg Adamo Europe la nekk lu mu xam nañ ko koo xamal. Adama duggul ci téléphone kenn lu mu yëg dan ko koo yëgal lu mu xamul du siiw lu ko waxul mënu koo xam parce que man tamit nit rek laa duma ma dëmm du ma jinne bay xool xew lépp déedéet lu ma xam rek dama ko maîtriser téye ko te ci ay nit lay jóge Layla Chef léegi la ma woo ne ma ne ma defal ma benn vidéo defal ma benn vidéo waxal ma comme affaire bi nii yàgg na wala yooyu audio yi ma la audio woon ma ne ko ok amul benn problème naa la ko gérer ndax sama xarit la laay ku baax la ku bëgg waali la bu leen ko mere ci loolu ku baax la ku bëgg waali la bu leen ko mere ci côté boobu léegi léegi benn affaire laa leen di wax Wally Seck mii sama xarit la sama way la sama lepp la kuko respect la mais dama len di wax wali sek mom moy kan ba ken waru ko meuna wax deug euma di badian bu genee wax ak Adamo parce que dafa seus parce que euma di moko gëna leer ne Adamo toro tar wax ji dina ag parce que ku bëgg mu ag rek mo koy wax Adamo parce que lolu mom moy buntu possibilité bi pour euma di meuna meuna meuna firi parce que loko meti. lu ko metti dafa sës parce que li muy dund Ramadan moo metti Amady moo daan defar son yi Amady moo daan def tournage clip bi Amady yëgatul dara Amady waxatul ko waxu clip Amady dugalatuñ ko Amady génneetulul ko ah, Amady yëgatul dara dégg ngeen li wax nee na Wally Seck sax pour dafa dem ba beddi leen am na vocal boo xam ne nee na Wally da leen a beddi maanaam da leen a génnee mais bu ma ko génnee àdduna day tukki eh damaa commencé ci Amady rek de déedéet nday njaay bànna yaa woon a maaraax ca Italie ne dama am benn problème bu aadama war a lijjanti maaraa woo ma vidéo ne ma nday njaay nee na ma ma bàyyi ko parce que dafa ragal tout suite rek mu laal ma trois ojo ma transféré ko sama beneen numéro bi jox ma benn numéro ma woo ndaw si nday njaay bànna yaa xam na li may wax man xam nga lan moo ma neex mooy lu may wax rek day leer lépp lu may wax rek day leer maanaam dafa am coow loo xam ne bu ma ko toppee mën na yàqum réew te jaru ko Amady Badiane xaritu euh, Waly Seck la bu ngeen amee lu ngeen wax da ngeen naan Waly mu xoolaat ay nitu démbam parce que ñi ñëw nii ñi ngi koy yàqal li ni li muy dund metti mais lan moo tax ngeen bëgg a ñëw naan Wally euh, Adamo euh, depuis ba mu gisanteeg Pape Diouf wala mu gisante Matar Diop suba teel wala mu gisanteeg ñoom Youssou Ndour dafa sensé dañ koo jën amul ku nekk ci àdduna bi di ma jox xaalis man naan ma saagaal Wally wala waxal ci Wally Matar Diop suba teel bu ma joxoon Wally xaalis ne ma waxal ci Wally nga xam laa ilaha illallah vidéo laa koy def xanaa xamu leen Adamo ne leen salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum Matar Diop suba teel moo ma jox 10 000 ne ma am sa katal day wali sek audio yaa di lepp lay tek dayam xana yir xamul leen boos day néegr yéen man kenn du jox xaalis nan ma waxal ci diw xanaa yéen da ah man sama yow yow lol yow yow loolu day defar sax lolou day gëna rafet lol de wali de lay gën a ojo Matar Diop suba teel mu jox la xaalis nala waxal ma ci diw nga yor appel yi yow koku boko tege wali da danaan bi mo wali dulit parce que dañuy contane ci loolu mataar du man de duma wo nan ma khalisa gi di waxar ci wali sek yow yow lol lol lol xel xalaatu yeen ñaata yoon la fi genn sénégalais yi nangam tàndayu Sidi job sa jall wi nangam nangam sa Youssou Ndour wali sek dem na terrain stade ñu ne Ndiaga dura a volume bi ba mun ta fi genn wax waaw njëga duur li mu def nangam nangam nangam taanu ndayu mag gi nangam taanu ndayu Matar Diop suba teel nangam taanu ndayu euh, kii euh, Sidi Diop ak ñëpp ma saagale ragale leen pourtant ay faramaar yéen a taxawoon naan ma yaa fi nekk Adama yaa tey réew mi dangaa bëgg waale moo tax ma bëgg la ku laal waale sekk nga saaga ko merci ko waali amul sa fay porte parole waali yaa baax ci faramaaréer yi yaay seen président Adama tey moo tourné di wax ay dëgg ñu ne Matar Diouf suba teel a ko fay wala Pape Diouf wala Sidi Diop xanaa kon waale dama ma daan fay naan ma saagaal Sidi Diop saagal Matar Diouf suba teel duggal ci Youssou Ndour nat nat def entrepreneur foofu xanaa man Adama waali dama daan jox xaalis naan ma saagaal Sidi dama nan def entre parenthèse pourtant ñoom ñoo ma doon woo ma encouragé naan ma yaa yaa réew mi Adama doon yaa baax ci réew mi tey lan mën a gis loolu parce que lan Wally Seck jëmmi Ousmane Sonko la taxawee ci réew mi comme waa kër Ousmane Sonko yi rek boo ne maki daa baax ah ñu saaga la ndey Ousmane euh, boo jógee ci Macky di di booy waxal Macky Sall lu baax ñu ne Macky dalaa fay bu dee contraire bi ngay waxal Ousmane ko nag ñu ne doo nit vrai patriote nga noonu la noonu la la Wally Seck taxawee taxawaayu Ousmane Sonko la Wally Seck taxawee ci réew mi mais man samay dëgg dama koy wax am na ñoo xam ne dañoo bëgg Wally jàpp ne bu nu waxee Wally dëgg dunu ma añ dunu reer déedéet man yàlla may teral mi may suturaal Wally yurul sama dara damay lekk damay reer damay noyyi hôtel yu cher laay tëdd di am sama xaalis dëgg bi dama koy jaar li gars yi di lam-laamee suuf di ko kepp moom laay wax ca kaw muy jóg parce que tamit ñi nekk ramdaan ñi ngi souffrir ñu bëri ñu bëri ñi ngi souffrir nday jaay bànna yaa da doon jooy ñëwul nday jaay bànna yaa xam ngeen kenn moo koy di ba ko Baye Sall indee waale accepté wul nday jaay bànna yaa buggul mu dugg barki Serigne Babacar Sy barki alxuraanul karim bi dañoo indi nday jaay bànnaya waali ne bugguma nday jaay bànnaya parce que dataam génn na te wër na àdduna waxewu ko doon de mais foofu lay image bi da doon jooy Amady Badiane ci jàpp xaar ma ñëw xaar ma ñëw déglu leen bu baax mos a dëgg la dama ne mosoo maa. Adamo. waaw ma daan jubluwaay yoo xam nga dama xam ne ñoo jaaxal. xaw ma lay jaaxaan de loo mos a dëgg la dama ne mosoo maa fen mosoo maa luy deñ. dama dama leen dama leen waxoon dugg. Ah. waaye li tax waaye loolu li ma activé woon li ma waxoon noonu loolu ah. ñoom ñoo ma toppaat nañu Amady ñu ngir yàlla ci xale bi dafa sopp mais yaakaar naa ne yaa ñëwaat sama kër. waaw ah. dégg nga nekk fa di jooy di jooy. am na loo xam ne rus naa koo yeggale sax lima xam dafa bëri de rus naa koo yeggale am na loo xam ne rus naa koo teg sax di ko yeggale man am na loo xam ne rus naa koo yeggale da doon jooy pour dugg Ramadaan te bàyyi fu ne bàyyi fu ne ngal nga xam ne sii di Diop ban génnee sa lëf moom ma njëkk a woo woo ma téléphone woo sa yaay di jooy mu ne li ma gën a métti sa àdduna mooy sama data doom ji nga génn nday njaay sa yaay wax may dégg li ma gën a métti aadama mooy sama data doom ji nga génnee di jooy ma ne ko jéggal ma erreur de lëf la Sidi Diop a ngi toog Sidi Diop di jooy sa yaay di jooy sa papa di jooy barki Serigne baaba Si mu ne ma bu ma la gisati nga defati lu mel noonu def nga lu ñaaw kii xale la dafa nekk ci yoonam ndaw la tey moom nga war war bu ñaaw war baaxul ñap ñap sidi job motax nekul gor jigen barke serigne babakar si sidi job motax ñap nekul gor jigen xam ngeen ñap mo nekkon ci boye nan sibin mun yi guru mun yi zara mun gor ho ngara ru ringi ndug langan gunda ho xola la jele indi la gor yalla riel bo ma leni tay yalla ak sidi joba tax ni dagay goré yéen a ngi naan goriwuma Matar Diop suba teel ku waa gaa yi sénégalais yi ko waale waali ta fay nan lay lay Matar Diop suba fay fay kay bu doon am ci laay dem mu fay ma nga xam ne damay tim ñoom Matar Diop suba teel rek chaque jour di leen ko jox ak ak Sidi Diop waale gën a riche waale ko am Europe cinquante mille euros la waale ku mu fay nga bàyyi àdduna waale kay bu la ñamalee ñamalaat la yow dootoo wax ci kenn ku dul waale comme que moom moo la fay Matar mënu maa fay Sidi daa yorul may fay ku ngeen naan chaque jour yorul xaalis na toppi ay moromam du dara Wally Seck ak Sidi mënoo leen a am palaas kii mi ngi dëkk ci ab ab ab kii ab ab ab bilan xaw ma ab immeuble bu kii nu mu tuddati ab building yor ay oto yi quatre cent mille euros koo xam ne nii benn Toyota bi mu yoroon jógewu fa du mu lay fay loolu la si ku ko digg xam ko ku yorul du muy fay man lay fay man pour may wax ci Wally Sidi man mën na maa fay man pour may wax ci Wally mu doon fay kay ci Wally laa yem. man dama cher di fay la pour ngay saga walé koku de xana man na ci tabax kër yobbu sama yaay makka parce que logu day cher parce que kik may lo dama ko bëgg mënuma koo saga kik may lo mënuma ko wax lu ñaaw parce que sama xol bi mo ci nekk lé yow nga bëgg ma tourner carte gitu ki diko saga wala ma koy wax lu ñaaw laay koku ay milliard koku li ngay dama ci tabax kër yobbu sama yaay makka do koy def khalis bobu sii yoruko mu ko sax si di xaalis boobu dama ne lu la si ñëpp a xam faramaareen yi ñun ñëpp ay faramaari la nan bàyyi dof doflu bi man sonn naa ci waale def naa lu ne ci waale saaga naa fi ndeyu mag ji mag ji xoolal C50 bii nii mënoon naa ko éliminer bu yàgg xam nga leen moo tax baaluwuma ko li mu doon wax Waly sekk ci wax ju ñaaw di ko def Waly Ballago sekk moom laa ko jàppaloon moo tax ma baal ñëpp topp ko ci ses cinquante bi xa mag ji laa ci gënoon a sonal parce que li muy def Waly la moom moo ma neexul moom laa ci gënoon a sonal Waly Seck ku nekk saaga na ko day ma génn saaga naa fi Sidi Diop ay ndey xas naa ko ci jàllam wi def naa fi lu ne Matar Diop suba teel def naa fi lu ne nit ndey jaay bànna yaa dataam bu ma ko génnee yàlla ak faramaari yi tax parce que ci sidi la nekkon di liggey comme ko xex bi metti ñu ne ma katal dayu vidéo yi ma doxat day mu genn billahi wallahi wa ta'ala da wonna ba dawal yeen tax yonde na ma audio ne ma ma sutural ko yonde na ma audio ne ma adamo sutural ba te yalla tax mais fara mari la top ak yi katal ndayam katal ndayam ma toj la fal ndayam parce que mi ngi ci sidi kon ku def lool lepp pour walé audio yi ma jay sek wax lu ñaaw ci yaayam ndax ndax ndax ndax concurrence bi muy def ak wali def fi lu ne koku warna meuna bañ wali dedet xana kon koku wali, da ko don fay pour muy def lolu pourtant du gene wax mukk ne wali dama don fay pour may pour may def lolu lima len lima li du taxaw ne wali dama dan jox pour def amul parce que kenn duma fay kon bu len ko xalat ci ñeneen yi bu len ko xalat ci Matar Diop suba teel bu len ko xalat ci sidou bu len ko xalat ci yusudur parce que nekul lu logique bu waxul dëgg wax fen waa Ramadaan ci boppam seen biir moo am lu leen metti amul yu ku lu ko waxal aadama moo fi sës pour placer pour wax ko léegi ci man la ni jaar pour ma mën a katt ndeyu affaire yi nii la demee ci man la ni jaar pour ma mën a dëgg ndeyu affaire yi parce que man la nit di déglu kon bu ngeen ci tuddee Matar Diop suba teel tudd Pape Diouf tudd Sidi Diop tudd Youssou Ndour tooñ leen coow li suñ biir la diggante man la groupe Faramareen rab daan ñoo seq coow li day a fee di wàcc si man may jàllale lan moo ci yoonu Matar lan moo ci yoonu Sidi lan moo ci yoonu Youssou Ndour ñi ngeen di tudd lan moo ci seen yoon bu ngeen jënteeg ñoom kay dem leen gën li jënteeg ñoom ci beneen fanam mais lii bu leen leen ci boole parce que lii man dañoo yëkkati sama téléphone woo ma wax ma li leen metti pour ma génn mën a leeral kaa bi moom laay leeral nii te ñi ma woo ñu ngi ci waali jege waali di nekk ak waali di se di di nekk ak moom di nekk ak moom guddeeg bëccëg di aña ndoog moom di reer ndoog ñoom ñoo am lu leen metti ci ñoom ñu woo ma téléphone pour ma génne leeral kaa bi mais Matar Diop da koo fay Sidi Diop da koo fay Pape Diop da koo fay day liggéey pour yàq waaye dee leen wax waxu nit di bajat bu gene dafa sës amore kan kan okay per favore abasala ok abasa okay amba di oke? bu gene dafa amba di bajat bu waxee dafa sës pourtant amadi ma muy waat naan barke alxuraanu karim al Qur'an ngi di ma téye aadama wax ak mom ñepp di ko ke di ma ko yónnee bëggoon nan ma toroxal amadi mais ma mané déedéet loolu lepp dama koy tek mais dafa am leneen lu ma ëmma di waxaatoon bu metti ma nag mu daw yaram lool ma ne lii mënuma koo buñ moo waral génn bii mais du génn Matar Diop suba teel wala Pape Diouf wala Sidi Diop li xew lépp xamu leen ko de coalition yi laa leen bëggoon a limal ñan ak ñan ak ñan ñoo ànd ñan ak ñan ñoo ak ñan ànd ñan ak ñan ñooy xeex seen biir kan la kan arrangé wul ak kan mais bu ma ko defee ñi may woo day bëri ndax ay tur laay tudd ndax man damaa dëgër fit damay tudd ay tur naan diw diw ak diw ñoo bokk diw diw ak diw ak diw mais bu ma ko defee rek gars yi dañ naan aadama mi ngi gën a tas mi ngi gën a yàq bala maa dee ñu naan waaw euh, euh, Adamo euh, dafa doon mu boo pour bës Adamo bëggul waale sekk da ko doon mu pour bës bës lay wër ci waale bës lay wër ci waale waale na dem live waali ne na dem tàllaay fam Adamo tàllaay fam na dem tim Instagram am mu taal ko ma taal sama live ñu jàkkaarloo ngeen xool ka ngeen xool kan la Sénégalais yi di seetaan exemple rek laa leen jox na dem taal live am ma taal sama live ngir xool ku sénégalais yi di seetaan man lu may doyee bës lu may doyee bës man man ma marqué ndeyu sama empreinte moo xam bon na moo xam négatif na ba senegal xam ma waale Seck 18 millions habitants yi ñu ko xamee 18 millions yooyu yu ko raw man yemuma sax Sénégal mais Gambien yeeg Malien yeeg xoolal euh, Guinée yi damay dem sax ñu may dogale ne ma ndax yow yaay Adama Bosey Negri nu mu mel ci réew rek noonu laa na ma ëpp xaalis na jël na ma ëpp ay oto na jël na ëpp lépp na jël mais wàllum siiw ak wàllum bës nan ko à côté te xam ne Adama yàlla def na ko ba pare man ba may tàkk man sama domaine lan ma fekk ma nekk seen biir bëgg ko yàlla tax. toppiwu ma ko xaalis mosumaa jox dërëm du kër du oto du xaru tabaski du dara bëgg te yàlla tax rek fu ma dem maay jëlal sama bopp hôtel maay fayal sama bopp maay lekkat sama bopp maay lekk sama naan moo tax man am naa droit wax ko dëgg mais ñi wër waali ku ko ci wax dëgg du lekk du naan ñi wër waali ku ko ci ne ko waali mii nga war a def ak nii dootoo lekk dootee naan fa ngay jaaree torox parce que waale yor sa lépp jotewu maag dara waale nit ku baax la yàlla na ko yàlla defal jàmm borom xol bu rafet la mais boo gisee may wax ak Pawlish Mbaye dem leen déglu interview Pawlish may dégg ngeen li mu leen wax nee na ma dafa am ñoo xamante nii biir Ramadan la nekk moom mooy wax ci interview biir Ramadan la nekk su Pawlish dafee vidéo dañu yëkkati seen téléphone woo Pawlish Mbaye ne ko yaa wax dëgg Pawlish toj nga réew mi mais ñoom ñooy wëlbatiku waat dem ci Wally naan ko Pawlish ni mu waxee waru koo waxe mais effectivement noonu la demee Pawlish li mu wax dëgg la ñoom ñoo lay woo apprécier ne la doo laal nga xol bi laal nga góob bi man mosuma wax ci Ramadane ba ku nekk Ramadane woo ma ne ma ni nga waxee du noonu déedéet au contraire toj nga réew mi lan may wax xaw ku la wax loolu yi mais fa laal baax na. man ci deug lay dox nanu bàyyi nafiq, xam nga lan moy nafiq est sénégalais moy am aadama mu don taxaw euh, di saga Matar job suba disaga di saga Sidi job di saga Youssou Ndour saaga Mandiaye Seck ñëpp ànd ak moom faramaareen ñepp and ak mom ñepp naan mo yor rew bi ñepp naan mo ngi tej dekk bi ñepp naan adam mo yañu doy ñepp naan ya fi nek ya bëgg adam mo ko di wax ay dëgg ñu ne mataar Diop da koo fay pour pourtant ba ma koy def ci sekk Seck waxuñu ma Wally da koo fay de musuma dégg ku taxaw naan Wally da ko jox xaalis naan ko saagal Matar Diop musuma taxaw ku ne Wally da koo jox xaalis mu dugg ci Youssou Ndour déedéet mukk parce que loolu amul ni ngeen ko nangulee ci côté Wally bàyyi leen di ko tuumaal ci ñeneen ñi parce que ku nekk da dee. aadama lu ne mën nga ko koo waxal ba mu des dan lay fay ngay wax maanaam dan lay jox xaalis pour nga ngay saaga waali man Matar Diop bu ma joxoon xaalis pour ma saaga waali Matar dootu ko defati mais Matar dootu ko defati parce que Matar xam na ne bu ma waxee loolu dama koy enregistré téye ko du ma jël xaalisam mais damay woo Sénégalais yi ba mu ñëw ma def contraire bi ne Matar Diop so yow loolu yow point bu baax la di loolu yow loolu waali fu la teg da koy yokk danaan doo yaa gën a gore ci àdduna bi yow loolu dinaa am occasion boobu man di ko date Matar Diop mu ma woo naan ma saagaal waale xaalis a ngi nii tasal carte gi boobu man dinaa ko am man dina date loolu dinaa am occasion boobu di ko date di ko ñàkk man léegi nag li ma leen wax rek man duma ma tontu ñoo xam ne ay bojo bojo lan du ma tontu géttu xar duma tontu géttu ganaar parce que du seen morom nee naa leen ni ma mel ci sénégalais yi dafa bu ëpp man maa nekk seule personne bu ma neexee yëngal dëkk bi bu ma neexee ma fay dëkk bi kaa bi ngeen di gis nii li muy rëy rëy rëy rëy yëpp bu ma neexoon daa deux heures de temps kenn dootu ci wax leneen laay génnee mu kattan réew mi ñu fàtte loolu yàlla man rek la ko bay parce que maa ko yore moo tax su ma neexoon kaa bi li muy rëy rëy rëy rëy yëpp mën naa téye kaa bi katt ndayam ba kenn dootu ko day fay ba génnee leneen loo xam ne ci la ñuy développé par force ci loolu la ñuy wax du dëgg ok léegi nag comme neex nga commentaire lu la neex comme neex nga wax lu la saf en tout cas daal ñiy wax naan dana saaga waale wala dana xas waale waale si aw ma lu ma koy saaga ak lu ma koy xas du ma ko saaga mukk ci àdduna bi waale ku baax la borom xol bu rafet la amul benn problème ak kenn mais day war a xoolaat di gestu xam ni muy doxale xam ay nitu démbam loolu rek lañ koy conseil mais ay ay waali dana ko saaga ci saaga waali la jëm ma ngay préparé euh, les saaga entrecensement lu ne ngay gis waxoo leen dëgg waali sekk du ma ko mos a saaga te ku saaga waali sekk dinaa génn dal sa kaw na ma meloon ci moom tey la raw tey la yokk mu xam ko mu ñàkk koo xam ngeen xam ko moom mu ñàkk koo xam ni ma meloon ci waali tey la gën a yokk mais man damay wax dëgg yéen lu tax mënuñoo war a wax waali dëgg déedéet mais Waly daa gën Ousmane Sonko bi nga xam ne moom laay teg chaque jour di ko wax dëgg Waly daa gën Macky Sall bi ngeen di teg di ko wax dëgg Waly daa gën Youssou bi ngeen teg di ko wax dëgg déedéet amul fii ku gën kenn bu nit ki defalul dara yorul sa dara sóoraale woo dara maroo taatu kenn da nga génn wax dëgg xaw ma nag bu dee da ngay mar taat wala da ngaa jàpp ne boo waxee dëgg dootoo lekkati wala boo waxee dëgg doo naan wala boo waxee dëgg dangay ngay effacé wu kooku bu la neexee nga toog mal placé pour wax mais man yooyu yëpp duma ci benn du dëgg léegi nag am na yu ma waroon a sax waxaat nii mais gis naa Paa di ma woo ak ñeneen ak jeneen xam naa dañuy yaakaar ne damay tojaan ay kaas waaw kay ñëwu jàpp bi faaw ñu insister fi parce que dafa am importance audio bi tegoon naa ko démb mais faaw ma tegaat ko parce que am na ñu ko déggul. xaar la ok gars yi ñëwu jàpp bi dañ ciy insister tegoon naa audio bi démb mais dama ko bëgg a tegaat njàpp bu muy ñëw biir Ramadan Baye Sall ko indi mais Baye Sall bu ko indee accord du wali sek la parce que wali d'accord na ci nan bayi nan wali du ci dara Amady Badiane dégg ngeen ay kàddoom Amady Badiane nee na ci bopam wali da ko beugona a ak Sénégalais yi wali da ko beugona a jaxase Sénégalais yi motax tax togg yep xam na ko moo jël japp tek ko tek japp ci digg bi naan Amady badian ay sa papa ñoo bokk fi bu décidé ma décidé bu décidé ma décidé loolu moom rek dernier parole bi ci Amady la joggé mais Amady xam na ci la ne damay dem damay dem Amérique ñëw su ma jógee Amérique damay toog du ma dem kat seen day ñoom ñëpp nañ dégluwaat audio yi ma doog a continuer. Laminaar Gawlo may woo Laminaar Gawlo Laminaar Gawlo may woo Laminaar may ma rek non Laminaar damay damay kii rek du def dara duma def dara Lamine du ma def dara du def dara du ma def dara Laminaar Gawlo la ndeysaan dafa baax Marine Laminaar. ku baax la ndeysaan laminaar amul waralam damay leeral rek damay leeral rek laminaar du ma def dara damay leeral lekk sa laminaar gawloo gi woote rek laminaar gawlo moo may woo du ma def dara laminaar gawlo la waaram daan la quoi waaram daan laminaar gawlo te yàlla la muy daaray woote. du ma def dara damay leeral rek déglu leen. xoolal pour wax leen rek dama leen wax ëmb dee may woo pour ñu bañ xam ne Adama mooy woote pour jël ay information man du ma woo kenn déglu leen di muy sonné. ëmb dee sama waa ji Papis. loolu dama lépp jàmm. allo waaw. xam nga jotee appel bee passé dafa lu ma la waxoon xam nga yow lii lépp xalaatoo woon ko. waaw déggoo ma ne xam lépp. léegi nag baal wax la benn affaire maanaam yow ci say tànk la nekk mënut a sotti ñuy jëm lii pour kii la yow loolu lépp xamoo ko. waaw waaw waaw déggoo lépp. parce que baax na. xam naa sax ba xam nañu xamul ba pare xamuñu ne man maa man man maa bañ a ñaaw non non problème bi xam nga problème bi bu xam hmm. kan, ah. ah, nga bu ñu tegee nit ñi di jox xaalis nga ne tekk ñu ne da ngaa siisu. daal lay dugal jaxase la Sénégalais yi mais yow naan nga loolu. nga leen a leen sama doom la maay papaam. kontaan naa ci merci beaucoup. lim sama doom la daf leen nand bu loolu rek la mën a waxee maanaam bu defee woon neneen ñu ne Amady daa siisu dafa den a gën a muus mais xam na li ñu togg pour préparer ko ko yéen loolu ngeen nandu nag loolooy coow li yëpp moom ngeen xamul yéen looloo metti nag moo waral coow li. foog ngay jëli sama sama sama sama parce que lu ma liggéey li may mais li ni jëm lépp boo ko xamee rek muy jàmm. parce que man dama toog xam lu bëri. xam naa kon jeex merci nee naa leen man foofu yow rek a fay sama waay yow kese bu dul yow du dëgg euro ñoom ñëpp mën naa dëgg seen ndey ñoom ñëpp nag laa wax. waaw ñëpp xam naa lépp dama ne dama bëgg dugg li ni ma ne gaase di ko def nii dama koo xam bu baax te yow doo dof <laughs> danoo yaakaar nit ñi danoo dof man kenn dofu fi danoo xamul rek. Ah, ma dof du ma seer ma bëgg dugg attentivement nee naa la <laughs> Badiane sa réseau bi dara baaxu ci sa réseau bi. waaw non xam nga mais dama ne. waaw li ñu bëgg ci kaw Sénégal laa dul nangu li a dóor ci ma mhm. perte man. Mhm. Mhm. dégguma de. non loolu la kay neex ma jékki-jékki retiré wu dem sama yoon ci ci anam yu rafet. waaw noonu la demee wu ci bu ma ko bu ma demee wu que gis bu ma bougé fii xam sama gis nga gis nga lii waxoon naa la ko avant tey xamoo woon lu bëri. non mais comprendre naa. seen liggéey la ñoom ñooy def lii. xam naa léegi nag vidéo bi dama cee wax dëgg dëgg sa waay la neex lépp lu nu def mu xam ne lépp moom la neex. moom la neex mos. moom la neex muy am dañ na xam nga li fiy dëgg dañ koy wax man de damay wax dëgg rek. waaw dama ne man sooy wax dëgg samay newu ci dootuma dootuma dootuma dootuma wax dara en tout cas daal xam naa ne dañu foog ne maa la koy wax la waxloo ko. waxloo ma ko te ku la ci tudd ma dëgg ndeyam. waaw ku mën a doon. waaw même ndeyu mbili ji bu gën a lox sama xam moom. waaw sama gat newu ci. yaa ngi sax mais daal li may xam ba xam ko mooy xam naa lépp pour nga ne Amadou Ba yaa xam ne merci beaucoup loolu laa bëgg. dinaa rek yaa ma du keneen maanaam yow wax may wax ji yëpp yow yaa tax sax ma a basé wu xam nga yow la dul feeñal moo tax du ma def loolu. la dama ne la danaa kat seen ndey kenn par kenn damay toog seen biir du ma ma du ma day du ma toog. jeex na après lii nag dinaa voyage ba après li dinaa voyage laa dem ñaa ñëwaat. jërëjëf dafa am rek pour def dem jërëjëf dégg nga de. jërëjëf damay kat xoolal dama bougé fii laay taxaw di sànq di kat nag dañuy dañ. lii ko metti léegi nag Amady bu waxee nii da ngeen di xool lan moo ko génn loolu tax mu wax Amady dafa sës daa am li xew rab daan lu bëri ñu koy defante seen biir mu nekk lu bon ci ku liggéeyal waale lu bari daa sës li ñuy dund moo métti mais mënuñoo génn mal placé pour wax ko moo tax ñuy jaar ci man